xam ne moo leen di rey ci sansé la nga xam ne nag moo ko waral surnal bi nee na jàpp nañu ne dafa amoon ay jafe-jafe ak jabaram joo xam ne seen dossier sax ma nga woon tribunal yéen kaay gi nee na moom faa la pay moome nag ginnaaw bi mu reyee ñetti doomam ba pare daal di xaru daal nay bind ab lettre boo xam ne wax na si jafe-jafe yi nga xam ne dund na ko ci biir néegu sëyam ak déception bi nga xam ne am na ko yéen kaay gi de ak enquête nee na en tout cas lii nga xam ne faa la pay def na ko doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne fu ko waay natt daat na koy passé yéen gi nee na niki ci dimanche ji la xew te moo ne day ci samedi ji moom Falla Paye ma nga woon ca diwaanu Mbour ak ñetti doomam yooyu nga xamante ni daan na leen di rey yéen kaay gi di libération nee na jafe-jafe yi nga xam ne Falla Paye amoon na ko ak jabarama mbir mi nag teere ji woon na tribunal tribunal bi sax jabaram la waxoon ngir mu téye xale yi en attendant maanaam ñuy àtte mbir mi yéen kaay gi di l'observateur nee na Falla Paye dafa rey ñetti doomam ba pare daal leen di rangale yéen kaay gi di vox populi daan nañ lan moo tax Falla Paye daal di rey ñetti doomam yooyu niki démb ci Ndakaaru ci Sacré-Cœur yéen kaay di 24 heures xëy na jëmee ci Barthélémy Dias mi nga xam ne dañu koo convoqué fukki fan ci weeru novembre procureur cour d'appel bu Ndakaaru daana ci indi ay leeral nee na Barthélémy mi nga xam ne convoqué nañ ko amul lenn loo xam ne laale na ci ak politique te Barthélémy Dias nag yëgoon na ko juróom-ñaari fan ci weeru sulet atum 2021 bi nga xam ne daan nañu renvoyé li nga xam ne mooy atte bi yéen a kaay gi de Le di réew mi Quotidien ñu xëy fekk fa Mamadou Ndoye ancien debout daan nay wax ne Macky Sall nii nga xam ne moom laa ko gisee ñetteelu mandat la bëgg a def ci réewum Sénégal réew mi du jàmmi réew mi yéen a kaay gi de Le ak Les Échos liste defar bu Adama Faye bi nga xam ne préfet yi ak sous yi dañu koo bëgg nii la la loolee nag tax na Sénat indi ci ay leeral Sénat jubbanti na ñi nga xam ne ñooy préfet yi ak sous yi na la nag mbir mi dafa am noo xam ne moom lañ ko tënkee Adama Faye mi nga xam ne moo taxawal liste defar li nga xam ne ay bàyyi benn yoon mu daal di sedd yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na bëri na ay liste yoo xam ne dañu ko rejeté ñan ñooy coupable opposition bi la wala pouvoir bi yéenekaay gi nee na liste defar sa gox li nga xam ne moom la ñu koy tuumal nee na ñu ay couleur am dafa niroo ak couleur benn bokk yaakaar yeewi askan wi ñoom nag ñoo ngi woote am mobilisation ndax nag nee nañu lépp Macky Sall la te ñoom du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu lak kenn munu tere ñoom ñu dem ci ay képp koo xamante nag annulé nga seen nga xamante ni daal annulé nañ fa seen liste jour benn yoon élection Touba bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Ousmane Sonko ki nga xam ne nag mooy Khalifa Sall nee na mbir mi ci boppam maanaam dafa luusa Déthié Fall nee mbir mi ñu ko bàyyee noonu daal sunu liste yi nga xam ne dañu koo daal di annulé yéen kaay gii di Direct News Moustapha Guirassy moom nag nee na dina porte plainte préfet bu Kédougou yéen kaay gii di Rewmi ñu xëy fekk fa Abdoulaye Diouf Sarr ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ci Benno Bokk Yaakaar yàkk nañu musiba ak mbelengaana opposition bi Abdoulaye na nii nga xamante ni moom la opposition bi di doxee boo ko xoolee rek xam na ñoom amuñu benn xam ci lu jëm ci wàllum processus électoral bi ñaareel bi tamit u ñu fenn maanaam nekk ñu fépp ci réew mi taxawal ay liste sax daal di leen di ta ñii nag ay nit lañ ñoo xam ne maanaam ñu incompétent lañ nekk fi di victimiser wu ak di attaquer ay institution loole du dëkk te ay tappale rek si lañ ko wékk kaddu yu Abdoulaye Diouf Sarr la mu ngi ci réew mi quotidien yéen kay gi de la turbine xëy di ñu xibaar naan ñu nag bëri na ay liste yoo xam ne dañu ko daal di nii lal loole nag sabotage bu mag a ndax nag ñi nga xam ne ñooy benn bokk yaakaar amul seen benn liste boo xam ne rejeté nañ lii nag xel daf cee tey loola yéen kay gi ne na wax sax ne liste yi nga xam ne ñoo nekk Thiès ci kujje gi yëpp dañu ko daal di annulé jamono ji nag obligation la opposition bi daal di dajaloo ci seen biir yéen a kaay gi di Walf Fadjri nee na en tout cas li ambade sala ñoom pare nañ ngir xeex réew mi quotidien nee na fisc bi nag daal nay tegg loxom débloqué na compte bancaire yu université Gaston Berger ndax Gaston Berger da leen a amee lu toll si juróom-ñaar ci ay milliards yéen a kaay gi di record nee ba léegi nii ma ngi wéy di am